الله أكبر الله أكبر الله الحمد والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد ما كجلدي ñi ngi denk suñ bopp di leen denk ragal yàlla ginnaaw loolu ñu bokk na ci jikko nit ñu baax yi bokk na ci melokaanu ngi ragal yàlla bokk na ci seeni doxalin mooy dañuy woyof waaye dañuy bëgg làqu dañuy bëgg a nëbb dañuy sori lépp loo xam ne day jëm ci ak siiw wala bëgg feeñ wala bëgg a fés ndax mbokk yi li nga xam ne mooy xir ci ak feeñ wala xër ci ak tudd wala ak tedd nga dafa nekk loo xam ne luy tarxiis loo doomu aadama la ba mu wàcc yoon wi nga xam ne mooy yoonu njub yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñaari till yu xiif yoo xam ne dañ leen a yabal ci géttu xar nee na lañ fa yàq na muy toll ak na muy garaawee ni xër ji doomu aadama di xëree ci alal wala xer gu muy xeree ci ñu tudd wala xer gu muy xer ci am jaax wala am daraja loolu lam mën yàq ci diine moo gën a rëy fuuf mooy gën a bari fuuf li ñaari till yooyu di yàq ci géttu xar te ku ne xam na ne till bu duggee ci xar mën naa rey mën naa mais lu mu sax dana ko fàdd kon daanaka lay mucc ci xar ya tuute lay doon neena naka nonu tamit nit ki su fekkente ne ci xolam xër ci alal daf cee nekk wala xër ci daraja ak tur neena na loolu li muy yàq ci diine moo gën a rëy fuuf la ñaari til yooyu di yàq yow doomu aadama bi lan la lay jariñ su fekkente ne nit ñi dañ lay tudd wala nit ñi dañuy coow ci say mbir lu tax ngay xër di feeñal melokaan woo xam ne meloo noonu ngir nit ñi wax ca yow te yaa ngi nëbb loo xam ne suñ borom xam na ko yaa ngi ragal doomu aadama yi ak di sàkku ci di sàkku seenu tagg ak seenu kañ ci loo xam ne meloo noonu doomu aadama bi nit ñi tudd gin lay tudd ak wax ci yow bu ñuy wax ci yow lu baax loola du la jëriñ dara ci suñ borom subhanahu wa taala su fekkente ne meloo noonu kon na nga daw li nga xamne mom moy siiw ak bëgg a fés comme ni nga xamé ne non ngay dawé gaydé na nga dawé nonu ak siiw ndax suñu borom subhanahu wa taala ci hadith bu wér yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam nak wax ne yàlla suñu borom dafa bëgg jaam bi nga xamné dafa ragal yàlla jaam bi nga xamné dafa doylu waye jaam bi nga xamné lay làqu inna allaha yuhibbu al abda altaqiya alganiya jaam bi nga xam ne day làq buggul fés buggul mbooloo ma fu mu toog day nekk wala day ñëw ci anam goo xam ne nit ñi dañ koy tudd wala nit ñi dañuy fësal ay mbiram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tagg na waajoo xam ne ci jihaat ci yoonu yàlla fuñ ko teg foofa lay tegu foofa lay nekk du faale ba xam nit ñi xam nañ ko wala nit ñi xamuñu ko liggéey bu mu war a def daf koy defee nam ko war a defee daf koy defee ci anam gëm gën a selle moo xam nit ñi yëg nañ ko wala nit ñi yëguñ ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne tuuba li abdin akhidin bi inaani farasihi fi sabilillah nee na ak texe ñeel na jaam bi nga xam ne dafa téye ci laabut fasam di xeex ci yoonu yàlla nee na ci melokaan wi nga xam ne moom la amee melokaan la woo xam ne nit ñi sax xañ na duñ ko bàyyi xel nit ñi duñ ko fonk ndax kawaram ma nga cuqaaral ay tànkam pënd waaye nee na fu ñu ko tegee rek fa lay nekk buñ ko tegee ci kanam fa lay nekk buñ ko tegee ci ginnaaw fa lay nekk nekk nit koo xam ne kenn xamu ko ba sax bu yëgloo mën nañ koo bañ a jox ndigal bu tinoo wala mu sàkku intervention ci dara mën nañ ko ko bañ a nangul ndax ñàkk xam ko ñàkk xam waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na texe ñeel na jaam boobu texe ñeel na jaam bu làqu boobu jaam boo xam ne ci liggéeyam la nekk ci wa ci warteefam la nekk faalewul ku ko xam ak ku ko xamul ak ku ko tudd ak ku ko tuddut asalafu saalix muy saxaaba yi ak taabiuun yi dañ daan daw li nga xam ne mooy fés dañ ko daan daw lool dañ ko daan jàppee sax na fitna la ak nattu la saxaabi bi mu naan abdullah ibnu mas'ud dafa mas a génn këram nit ñi topp ko nee na bu gestu daan ne leen lan lan ngeen may toppee soo leen xamoon li nga xam ne moom laay wéetee wala li nga xam ne su ma wéetee moom laay def kenn du ma topp ci yéen loolu mi ngi ko wax jublu ci woyof jublu ci suufeel boppam moom abdullah ibnu mas'ud ñoom salafu saalix dan daan daw ak siiw ba àgg ci ñi nga xam ne sax ay jàngalekat lañ wala ñi nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ sax am na ci ñoo xam ne bu toogaan jotaay mbooloo mu bari toog rek dañuy jóg dañuy daal di jóg dem ndax ragal mbooloo wala ragal nit ñi di wax ci ñoom wala nit ñi di leen tudd ba di leen yéegal ci palaas yoo xam ne yegguñ fa ndax lu bari ci ay dérapage foofu lay tàmbalee mooy nit ki toog ay nit waru ko di ko wax di ko di ko yëkkati loola mën ba mu ne kat yegg na ci palaas bu kawe ba mu ne kat nekk na ci anam wala ci ragal yàlla yegg na ci fu kawe ba loolu jural ko mu yëg boppam loolu jural ko eh, ak ikhlas boo xam bu amut lay doon ixlaasam day muy selalam day am jafe-jafe ndax nit ñi fi ñu koy teg wala nit ñi tagg gi ñu koy tagg ak tudd gi ñu koy tudd alimaam ahmad daraan wax ni képp koo xam ne dañ koo nattoo siiw kooku mu tëgul ci fitna kooku mu tëgul ci fitna abdullah ibnu mubaarak daana wax ne sufiyaan daana ko wax ne ko moytul siiw ndax mosuma dem ci kenn ci boroom xam-xam yi lu dul day tere ak siiw wala fes mbokk jullit yi siiw day képp koo xam ne bëgg na ko kooku danañ ko fitnaal ci diineem ba mu mën a yegg sax ba bàyyi yenn jaamu yàlla yi wala ba mu mën a yegg sax ci def yenn bakkaar yi day wax ne na nga xam ne képp koo xam ne bëgg daraja bëgg tedd nga dafa nekk ci xolam nee na kooku yitteem li yépp mooy day bàyyi xel doomu aadama yi lépp lu muy def rek doomu aadama yi niñ ko war a gisee noonu la koy noonu la koy defee noonu lay xalaat lii may def day doomu aadama yi naka lañ koy gisee naka lañ koy apprécier loolu mooy tax muy def mooy tax muy bàyyi loola nag mën naa yegg ba nga xam ne su gisee ni su defee nangam mu gën a kawe ci doomu aadama yi mu def loola donte loolu sax lu neexul suñu borom subhanahu wa taala loola mën na koo jural mu mu sàggan ci yenn jaamu yàlla yi mën na koo indil ba mu def yenn bakkaar yi ndax loola mooy tax nit ñi yëkkati ko wala mooy tax mu kawe ci doomu aadama yi ci bunt boobu sax ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon nit ñi ñuy sol ay colkak yoo xam ne dañ ciy siiwe muy siyaabu shuhra muy colka boo xam ne foo dugg nit ñi gestu la nit ñi xool la moo xam dafa àgg ci valeur foo xam ne fu jéggi dayo la wala boog dafa àgg ci suufe ak ci ñàkk solo foo xam ne fu jéggi dayoo la ndax ñaar yooyu yépp day waral nit ñi di la bàyyi xel wala nit ñi di la xool ñu bari dañoo yaakaar ne yére boo xam ne mooy yére bu am valeur yére boo xam ne bu cher la lool loolu rek mooy siyaabu shuhra mooy yére boo xam ne mooy yére siiw déedéet waaye yére am na nu muy mel ci doyadi am na nu muy mel ci ñàkk solo nit ki tay ko sol ko bëgg ñu ne moom kat ku dëdd àdduna la moom kat sori àdduna la loola day nekk yére yoo xam ne yi ay yére siiwte la donte ay yére yu woyof la kon nit ki day nekk nit koo xam ne ku digg doomu la di sol li nit ñiy sol di def li nit ñiy def kon mbokk yi nañu ragal bànneex boobu nga xam ne la bu nëbbu ci biir xol muy bànneexu bëgg tur ak bëgg dara te bu demee ba jekku xol bi xol bi dana def wala bakkan bi dana def ay pexe yu mën a def ngir mën a jot ci lool mën na koo jaare ci anam yi ñépp xam ngir bëgg a siiw mooy di feeñ ci mbooloo yi di wax wax yoo xam ne wax la yoo xam ne kenn sañu koo wax wala kenn du ko wax ngir ñu ne diw la mu wax wala diw na mu mënee xóotal ci ay xam ci xeeti xam-xam yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne seytaane dafay jaar ay nit ngir mm, bànneex boobu nek ci ñoom ngir sàkku li nga xam ne moom mooy siiw yenn saa yi nag seytaane day jaar doomu aadama bi ci ay jëf yoo xam day gis ci kaw day wuuteeg ni kii kat bëggut siiw day mel ni kat siiw ñoru ko ak fes ñoru ko te fekk loolu moo nekk ci biiru xolam muy ak siiw ci sori nit ñi ak ci dëddu ngir ñu wax ne moom kat ku dëddu àdduna la moom kat ku mën a la loolu yépp ndekete bi mu koy def mi ngi nekk ci kaw lu baax waaye fekk ci biir xolam loolu la ca jublu ma nga bëgg ñu tagg ko ma nga bëgg ñu yëkkati ko nee na yenn sax mën naa suufel boppam mën naa mën naa ŋàññi boppam wax ne man jaam bu bi man jaam bi nga dara lam ciy jublu rek mooy nit ñi wax ne kat ku woyof la kii kat koo xam ne yëgul boppam la loola bëgg-bëgg boobu nga xam ne moo nekk ci biir xolam moo koy jural muy wax baat yooyu moo koy jural muy suufeel boppam ngir nit ñi yëkkati ko loolu ci pexe seytaane la yoo xam ne da koy jaar dafay jaar doomu aadama bi ngir ñu mën koo yëkkati ngir ñu mën koo kaweel nee na yenn saa yi sax boroom xam-xam mën nañ koo laaj loo xam ne xam na ko mu dal ne xaw ma ko ngir nit ñi wax ne kii kat ku ragal yàlla la kii kat ku maanu la luñ ko laaj sax danaan xaw ma ko te fekk loola xam na ko nee na yenn saa sax ci ay yëreem la ko seytaane di jaar ak ci melokaanam mu yor melokaanu ku dëdd àdduna du sol ay yére yoo xam ne yu cher la du laal ay parfon lépp loo xam ne xeeti taar la du koy bàyyi ngir lan ngir nit ñi buñ ko gisee ne kii kat ku dëdd àdduna la kii kat ku sori àdduna la moo tax alxasanul basri daan wax ne am na ay nit yoo xam ne rëy ci seen xol la nekk ci seen xol lañ ko def waaye ci kaw dañoo feeñal ak woyof dañoo feeñal ak suufe waaye ndekete rëy lañ fas ci seen biir xol yooyu ñuy def yépp ci xeetu suufeel seen bopp ci xeetu xeeb seen bopp yooyu ñuy def yépp lañ ca jublu mooy nit ñi yëkkati leen nit ñi teg leen fu kawe moo tax bànneex boobu borom xam-xam yi wax nañ mooy bànneex yi gën a danger ci doomu aadama ndax nit ki mën na koo mën naa jaay yeneen bànneex yeneen bànneex yépp ngir am bànneex bi nga xam ne moom mooy tur moom daraja nit ki mën naa joxe alalam ngir am tur nee na am na ci ñoo xam sax dem nañ ba mën joxe seen bakkan ngir mën a am tur nga xam ne tur woowu ñu leen di tudd sax duñ ko fekkee waaye jaral na leen ñuy wax ne moom moo jàmbaar moom moo def nangam mu ne bànneexu bëgg tur mën naa dem ba àgg foofu ci doomu aadama kon buntu boobu buntu bu danger la boo xam ne seytaane dafay jaar di ci jaxase di ci jax-jaxal nit ñi rawatina ñi nga xam ne ñoo yëngu ci xam-xam rawatina ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ wala ay jàngkat lañ wala leneen ak leneen ñooñu seytaane da leen di jaar ci bunt boobu boroom xam-xam seytaane mën na koo jaar ci bëgg gu muy bëgg nit ñi tagg ko mën dan dem ba àgg di waifal yenn fatuwaay ak di noyal nooyal ak di ko yombalal nit ñi ngir nit ñi wax ne moom kat ku mën a woyofal la moom kat nekkul ku tar moom kat ku digg doomu la ñi nga xam ne ñooy jàngkat yi loolu it mën na dal ngir nit ñi wax ne kat ku la kat ku neexal la ngir nit ñi di leen def ci seeni statut ngir nit ñi di leen tasaare ñu siiw dal ci am tur fun dem ñu xàmmee leen fu dem ñu ràññee leen di wax ne diw teew na fi diw ñëw na fi loolu nekk loo xam ne bànneex la boo xam ne ci biir xol lay nekk doomu aadama ci boppam la yàlla nattoo mu bëgg ñu koy tudd mu bëgg ñu koy kaweel loolu nag nit ki da ciy xeex ak bakkanam ndax lu jafe-jafe mucc la lu jafe-jafe mucc la waaye nit ñi da koy xeex di ko xeex ba yàlla defal ko ci tawfiq mu mën a mu mën koo gañe ndax bànneex boobu képp koo xam ne nattu nañ ko mu am ko day am yeneen feebar yoo xam ne ci feebar yu xol la yoo xam ne da koy dal bi ci njëkk mooy kiñaan bànneexu bëgg fés wala bëgg daraja képp ko mu dal day ki day iñaan ndax su gisee keneen di kawe su gisee keneen koo xam ne nit ñi ñu ngi koy tudd lu ëpp liñ koy tudd moom day bëgg kooku ay mbiram fay day bëgg kooku ay mbiram wàññeeku dana mën naa am sax mu def ay pexe ngir kooku nit ñi bàyyi koo tudd wala nit ñi bàyyi koo tagg kon su boobaa feebaru kiñaan mi commencé dugg ci biir xol waaye beneen feebar bi nga xam ne moo koy dal mooy feebaru rëy day rëy ndax ku mel noonu bëgg kawe ak bëgg tudd foo ko fekk mook rëy ñooy ànd te ñaari feebar yooyu ay feebar yu doy waar la yoo xam day dal xol feebar la yoo xam ne nit ki war naa xeex ak bakkanam ngir moytandi ko képp koo xam ne nag suñ borom nattoo na ko nag ak siiw ca fekk sàkku ko waaye suñ borom subhanahu wa mën naa natt doomu aadama mu siiw mu fés ci loo xam ne nekkut moo ko sàkk ci loo xam ne nekkut moo ko bëgg mën naa nattoo doomu aadama sax nit ñi di ko tagg nit ñi di wax ci moom lu baax te moom sàkku ko ko lola yonente bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko ko laaje ne ko xamne nit ñi dañ koy tag wala nit ñi dañuy wax ci mom lu baax bu daal ne lolu day aajilu al mu'min la lolu mekte muñ gaawale ki nga xamne dafa gëm yàlla la mekte mu ko yàlla gaawale le fi ci aduna moy nit ki di def lu baax te suñ borom subhanahu wa taala rek tax nit ñi yëg ko di ci tag di ci wax lu baax mu yëg loolu bég ci ci biir xolam loola nekkul loo xam ne lu aay la waaye loolu mbégte la mu ko yàlla defal mu ko yàlla gaawel fii ci àdduna meneen mbégte bi di ko xaar àllaaxira waaye nag day fekk koo xam ne sàkku ko bëggu ko doxul jëm ci kon képp koo xam ne yàlla nattoo na ko siiw googu li mu war a def mooy mu bàyyi xel borom subhanahu wa taala taqoog li nga xam ne mooy ak toroxlu di toroxlul boroom subhaanahu wa taala di fàttaliku bi tudd ay bàkkaaram saa bu demee ba xelam walla xolam jox ko ne ko moom ne moom kat ku kawe la moom kat bokkut ak nit ñi mu fàttaliku bàkkaaram yi nga xam ne moom xam na ko digganteem ak boroomam su ko defee dina xam ne moom kat du dara dina xam ne moom kat jaam bu xeebu la jaam la boo xam ne bu ko yàlla jéggalut mën naa alku bàkkaar yooyu muy fàttaliku bàkkaar yooyu muy teewlu loolu mën naa tax du yëg wala du waru ci nit ñi tagg gi ñu koy tagg wala wax gi ñuy wax ci moom lu baax muy wax li nga xam ne moom la saxaaba yi daan wax kenn ci buñ ko wala ñu wax ci lu baax day wax allahumma la tuaxidni bima yaquluun yow yàlla suñ boroom yàlla bu yàlla boo ma ci nit ñi li ñuy wax ci man nit ñi li ñuy wax ci man di ma ak wax waxal lu baax yàlla boo ma jàppee loolu waxfir li maa la yaalamuun yàlla maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li nga xam ne xamuñu ko ci man ci ay bàkkaar ak ay ñawteef suñ borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ne tilka daarul axira mu ne alaxira kat kërug alaxira najcaluha lilladina laa yuriduuna uluwan fi l ard wala fasaada maa ko jagleel ñi nga xam ne bëgguñu kawe ci kaw suuf